nekk mu bañ a nekk dàng sante mais mu nekk non du dàng sante taru nekk une réponse juridique dafa war a nekk une réponse technique nit ñi teg seen bët mu leer naññ parce que ci contribuable sénégalais lañ leen di fay. Ousseynou leen du xëy na dañoo léegi nag lool nag boo ko deful après ku nekk tuuru ci ay demandé ça leen andi leen seen techniciens yi ñun ñu andi suñu technicien xam nga euh, et d'ailleurs euh, j'invite les gens à regarder cette conférence de presse c'était une amul yaakaar naa wala foog naa ñoom dañ ne lii la ñu am. lii lañ joxe. Mhm. ñoom bi ñu contrôler lii lañ ñu jox. ñun bi ñu saytoo lii ak lii ak li méngoo na moo tax ñoom ñu war a apporter une réponse sëñ léegi pour daanee rek ca parrainage lu ndaw. xam nga lii lépp xam nga lu muy wane. échec gu dialogue ba rek. Hmm. dialogue bi rek la woon lenn pour l' opposition. Mhm. lan la leen réglé. transparence da ko gis ci processus hmm. lu mu apporter. ñii ngi def parrainage citoyen ñii di def parrainage élu ñi demoon. Euh, recueillir signature ñoom ci lañ bokk luñ déposé bii citoyen bii élu ñi waxoon am nañ 3 millions de parrain luñ déposé. Mmh. élu lan la dialogue bi rek la pour l' opposition rien. donc mascara la woon loolu leer na moom léegi. kon su ma su ma su ci Cheikh Ousmane toure joriñ Ndiassé kon on est partie pour vivre des élections trop compliquées pour sax dem bay dute ci crédibilité wu élection yi ñu jëm nii. PDS day day day participer ci élection yi di ñëw. ah am na candidat kay ndax Karim Meïssa Wade la te validé na. 2019 Ablaye Wade waxu fi woon ne euh, élection yu Macky Sall organisé du ci dem. nañ nañ xotti carte d'identité waaw ko. xanaa dafa changé position. <laughs> jaar naa laajte la. ñun tax nga fàttali noonu. ah mais Macky fi nekk ba léegi ah. dara changé wu. dara changé wu. Hmm. Ah. mu bañoon tey mu bëgg. taxaw ne la bàyyi naa njuuj njaaj. King Fahd la ko waxee woon. Ah, amatuma lu may njuuj. amatuma lu may njuuj njaaj. kon amoon na. Olof Ndiaye lu mu wax jikko ak borom. ah ba ca pax bala de. Ah, loolu la wax léegi yéen. jërëjëf bàyyi dund yi di ñu tax nii. <laughs> Ah, mais xam nga corruption bi dafa nekk dans tous les niveaux quoi au niveau du Sénégal. Mm. léeg-léeg damay dégg ñu naan presse bi mais des fois man commerce laa gis pas presse. déedéet waaye tey moom presse ngeen attaqué tey. bàyyi parce que. tey ji bon du ma wax journaliste yi quoi mais tey ji le euh, patron des presses le patron des média ñu ci ëpp ay commerçant lañ duñu ay journaliste de profession moom nangul naa tey ji journaliste bu ci am liberté def sa liggéey ni mu waree boo xëyee ñu dàq la hmm? bon tey jii bu ñuy jël média bi nga xamante ni Sénégal yëpp ko bokk RTS depuis que régime bi ñëw ci pouvoir bi ba léegi RTS est-ce que mi ngi def mi ngi taxaw taxawaayu audiovisuel euh, national ñëpp bokk ci yam mhm. tu vois. Mhm. seen journalistes yi sax kenn xàmmewu leen. parce que kenn du leen suivre ñuy invalider dossier Ousmane Sonko ci lañ leen gis ñu ñëw taxaw ci biti lu <laughs> caaxaan ni ma lay wax ni bi ñuy invalider. monsieur Ousmane Sonko vendredi boobu. Hmm? man de seetaan naa ñu bëri mandataires yu bëri défilé déglu naa seen sortie maa ngi xool micro yi parce que bon comme ci communication laa ne da je regarde les micros <laughs> mais keroog moom. am na micro bu daan absenté mais keroog. quand il s'est agi du dossier de Sonko. am na micro bu ñëw. bu te ba mu ñëwee. ba mandataire Ousmane Sonko waxee ba noppi ba dem. Mhm. micro bay gisaatuma ko. ban micro la ah nañ xool ca àjjuma. ah non non mais mais c'est des faits. d' accord on n'invente ah rien. aywa ah man damay toog ba ci yàgg may xaar quoi ma ne léegi ñun fii nii observateurs yi ak journalistes yi ak booy déglu revue de presse yooyu Macky Sall day xëy pousse pion ñu topp ci di commenté ginnaaw suba Ousmane sonk pousse pion ñu toppaat ci di chronique bañ nañ ko sax Ousmane Sonko bu gëjee wax wala gëjee kii gars yi duñu am matière. Hmm? te presque boo bon boo demee ci dëkk dëkk dëkk dëkk dëkk tubaab yi au niveau d'Europe mais presse dafa am pouvoir. dafa doole. presse bi quatrième pouvoir la te ñoom ñoo war a éveiller. pas ici États-Unis bi. ba tey noonu la tamit. <laughs> le président chaque matin déclare son agenda de la journée. Mhm. man damay dem sax. ñëpp ci am accès. ma ma damay dem sax bay gis. loger ko sa biir Maison Blanche. c'est vrai koo recevoir sax te waroo ko recevoir. soo xëyee suba. am nañu ay journalistes yu mel ni Mansour dañ lay xëy. <laughs> laalal la. mais mais mais j'espère que lii ngeen fi wax comme mooy quatrième pouvoir bi su yàlla defoon ngeen toog ci nguur di ngeen corriger lii. gis nga man li may ñaan yàlla li ma gëm la sama conviction la. Ah. gis nga réew. du homme politique moo koy defar. déedéet homme politique day wax yéeneem tracé nit ñi suivre xam nga ñan ñooy defar réew. la conscience citoyenne. tubaab yi da nga yaakaar ni tubaab yii di jiite ñii. Mhm. ñoom dañoo gën a jub suñu njiiti. gënuñu leen jub de. et la preuve da ngay gis mais yàlla a le consortium des journalistes là d'investigation c'est cent cinquante journalistes ñooñu seen tëju di xalaat yëpp xam mooy lan. li leen seeni dirigeants yi di nëbb di leen wan ni dañoo jub te jubuñu di nga un dirigeant blanc wala d'un pays développé gënul suñu dirigeant yi de mais xam nga lan moo tax sañul yenn yi parce que dafa xam ni su jëlee kere kérosène wu réew mi mais ko ci beneen dëkk suba ñu tëggal ko raas goo xam te ni doot ko dolli <laughs> mais loolu ñan ñoo koy def population bi la ak presse bi ak société civile pour yéen ñi ñu seetaan naan son bi son bi da ngeen di génn rek duggaat incha allah lépp baax na. aja ñu bàyyi la nga yeggali loolu kii la woon rek. non man et puis ci euh, si système parrainage bi dama ci gis benn forme de dictature. Mhm. boo xamante ni parce que man je ne peux pas comprendre parti politique yi naka la ñuy mën a collecter de parrainages. Mhm. te amuñu référence bu leen mën a won ndax li ñuy collecter baax na wala baaxul. non loolu moom c'est un problème ndax fan ngeen amee référence amu leen fichier bi. xamu leen ci ban fichier ngeen ñu ngeen ngeen référé wo kooku normalement opposition bi yëpp dañoo waroon bokk booloo mais bañ bañ ne duñ def parrainage duñ dem élection fi ak résoudre duñ problème yooyu. parce que tamit loolu dafa psychologiquement sax dafa metti yow fii fii gars yi njort la ñuy demee njort. mais mënuloo demee ak certitude. imagine toi nga def effort pendant combien de mois ngeen nekk ci terrain bi. di def ay parrainage dépenser temps énergie xaalis tiwa ba le jour ngeen dem joxe ko ba pare di dundee yaakaar loolu mooy lan. loterie. ah loterie. ah mais tamit loolu dictature la ko ah. tu vois xanaa diine sax nga xamante ni ñëpp xam nañ nii mais yàlla sax jox nañu téere boo xamante ni référence la pour suñu comportement wala. Hmm? lii ak lii ak lii ak lii ak lii boo gëmee yàlla lii ak lii ak lii ku ko def dem àjjana lii ak lii ak lii ak lii ku ko def dem sawara dëkk mais noonu la war a deme nit ki bu fekkee ni danga am loo xamante ni danga ko bokk ak waa dëkk bi mooy dëkk bi lu ñëpp bokk la mais da ngaa war a lépp loo ciy def nga waxtaan ceex waa dëkk bi ak ñi ngi ko sekkal quoi loolu mooy yoon parce que àdduna ñett ñett doo nga fi nekk loo moomal sa bopp loo bokk ak nit ñi ak loo xam moomoo ko mm-hmm. loo moomul maandu ci sa yoon nekku ci loo bokk ak nit ñi waxtaan ci nit ñi balaa nga ciy def dara loo moomal sa bopp nag lu la neex def ci loolu da yomb nag loolu mooy démocratie mais yow fii Sénégal Macky Sall président bi day taxaw di wax mel ni moom moom Sénégal quoi ay ñëw leen dialogue ku ñëwul dialogue ku gedd sa yaay aye. ñaan leen ma ko ci njëkk. ñaan leen ma ko ci njëkk. ak vaccin yi su ngeen ko jëlul ma maye ko ah. bu ngeen ko jëlul ma maye ko ah, ah, ah nu mu tuddati ah, Macky Sall gëmul dialogue. gars yi bu ñu xamoon ne Macky gëmul dialogue parce que jamonoy Abdoulaye Wade fii dialogue bi ñu fi defoon la ak Amadou Makhtar Mbow la xaw ma kii. Hmm. mais ba mu bokkoon na ci dialogue bi au début mais ba mu faloo lan la wax lu ma ci neex laay jël. assise nationale assise nationale lu ma ci neex laay jël. loolu day firndeel ne moom bëggul dialogue. lépp léppam léppam njuuj njaaj la. déedéet nee na bàyyi ah suñ sukkandiku na bàyyi na ko. Ousseynou déet déet <laughs> moo ne amatuma. non non déet non. non dama lay toog rek. damay damay andi mooy nam ko waxee woon rek. waaw nam ko waxee woon amat ñëw leen ñu waxtaan ndax. Euh, amatuma lu may njuuj njaaj. amatuma lu may njuuj njaaj. kon d'accord ku wax feeñ. et puis man li may li may ku wax feeñ li may poser question mooy. mooy lan parce que Sénégal ñett la dafa am les quatre pouvoirs. tu mais am aussi peuple bi quoi. Hmm. mais comment koma comment il se permet démb. Euh, euh, ñuy ñuy dajji kiiwu Pastef Ousmane Sonko sans la présence de son avoca lu toll ni président cour constitutionnelle mandataire am daal mandat sans san mandataire am mm-hmm. ba pare ne ko dajji nañ ko mu leen di laaj lan mooy cause bi ak lan mooy ñu indil ko policier nag génne leen ko en tant que avocat mais loolu l'argument de la force <laughs> gars yi gars yi de. mais mais mais fi loolu. doole crasse yi moo fi am Sénégal nañ ko wax mu leer léegi. bu doon ci dëkk loi. dala naan en vertu de l' article tel tel tel tel. on a procédé ainsi. en vertu de ah, l' article. mais comme boo prononcé wul article ne gendarme génnal ça veut dire que <laughs> kon joxe woo article argument bu fort force nga joxe. et d'ailleurs c'est c'est en fait c'est c'est symptomatique. lan moo ko war a mën a may gouvernance du régime de Macky Sall c'est la violence verbale c'est la violence policière c'est la violence sécuritaire c'est la violence judiciaire c'est la violence politique loolu c'est le manque de respect sax ci peuple bi ñi nga xamante ni même bu doon benn nit moo gëm Ousmane Sonko citoyen sénégalais la dañ ko war a respecter voilà. loolu mais mais mais mais mais kii. Ousseynou li daf may permettre doguma la si Diori Ndiaye si yàlla bu la dee dog. Mhm. mooy mooy ndax mën nga ñëw leeralal. ci situation wu bi wër Ousmane Sonko. donc parce que li mu wax ni moo ma permettre transition ba mën a ñëw foofu moom euh, ci wàllu éligibilité bi. dafa am controverse yu bëri yu ci nekk yu ñu ciy wax finalement naka la Pastef fas nii taxawee. ngir au moins résoudre loolu ma jàpp ne ay controverse la jëm ci éligibilité wu Ousmane Sonko ci présidentielle bi xam nga loolu euh, je pense que ku déglu avocat yi d'ailleurs vendredi encore defoon nañ benn sortie et j'invite souvent suñuy invité ñi nga xam ni seen xel daa jëm ci seen domaine maanaam mm-hmm. seeni avocat la technicien la ñu leen di déglu mm-hmm. gis nga mbiru Ousmane Sonko man je pense que su fekkoon ñi ñu jàkkaar loolu ñu gëm yàlla lañ dañ doon toog rek nangu. Mhm. parce que koo xamante ni depuis 2016 nga tàmbali. Mhm. jël doole état di ko ko dóor di ko ko dóor di ko ko dóor pour lan diw du fi taxaw diw du fi am lii diw du te yow ba ca cappaandaw élection gi nga ne bëggoo mu bokk ko sax tu n'arrives jusqu'à présent à te de lui. Mhm. loolu su fekkee ni par exemple dañ ne ko nit ñu xelu. dañuy toog ne ah sa waay kat nañ xoolaat mbir yi. parce que boo rappelé wu. xam nga yenn boo koy wax dañ naan noo da ngay politique mais man li may wax souvent lu ñu def da def politique dañuy mm. soulever ay fait li ñuy wax su amul nañ ñu ne lii ngeen wax amul wala demeewul nii. Mm-hmm. l'histoire a montré que. Mm. élection bu Macky Sall jëm am na benn opposant bu mu ci jàkkaarlool am na opposant bu mu ci àndil jafe-jafe. Mm. bi mu jotee ci nguur gi ci Karim Wade la jubali jàpp responsable PDS bëri andi leen jafe-jafe jàpp Karim tëj. législative euh, élection locale 2014 mu ñëw kaawu xalifa Sall. par la force des choses xalifa jëlaat mairie de Dakar gis nga bàyyiwul de. xalifa ñu jëm ci euh, bi mu ci jugee mu commencé ses tournées politiques. législative 2017 mu ne leen non fii moom du fi bokk. maanaam je vous rappelle que bi ñu def législative 2017 Khalifa Sall était en prison. Mm-hmm. taxul mu bàyyi de. bi bi élection yi jàllee tat gis nga ni ñu levé immunité